mbokk yi ñu ngi am mbégte ak kontaante de at bu ngeen di teewlu ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a baax leen dalal jàmm ci seen émission Vox Arena fii ci seen télévision Equivox TV tey nag mbokk yi ñu fas yéene waxtaan ak kenn koo xamante ne dootuñ ko présenté ci làmb waaye dootuñ ko présenté ci Sénégal ñu naan ko coach Mame Less di su euh, Parcelles Mbooloo moom la ñu fas yéene dalal tey fas yéene yaatal ak moom ci yu baree bari ci wàllum làmb ak ci wàllum actualité nga xamante ne euh, jàngoro bii di coronavirus sonal na àdduna euh, bi yëpp ñu fa yéene ci euh, waxtaan ak moom aussi mu indi ci contribution waaye mbokk yi ñu leen di wax ni nañu continuer rek di respecter barrières yi di continuer di respecter mesures d'hygiène yi nga xamante ne autorités yi wax nañ ñu ko yaakaar naa buñ ci góor góorgóorloo yàlla mun na indi saafara ci jàngoro ji. ñu bàyyi ko mu nuyu mbokk téléspectateurs yi ñu daal di yaatal salaamaaleykum coach. Eh, maa ngi leen di nuy Cheikh Omar di nuyu suma waa écurie waa Parcelles Mbooloo di nuyu suma booy Elage xam nga suma booy bi. Mm-hmm. di leen siyaar yéen ñëpp. di leen bëggee di baalo ak ñëpp aussi ci koor gi di leen màggal bu wér di leen ñaanal jàmm di jaa di siyaar ñëpp. waaw di di bëgg di bëgg aussi ci invitation bi ndax bëgg nañ lépp li ñuy waxtaane muy njariñu làmb ak li avancé lu làmb waaw tey wax dëgg nit ñi. alors jàngoro yi nga xamante ne moo taxawuloo activité yu bëri. Mhm. ci àdduna bi rawatina làmb ji. Mhm. ndax moo tax ñu raar nga raar ñu gëj laa gis walla lu xew. noo man damaa confiné sama bopp confiné samay bër ndax man ba jour bañ koy caaxaane man laa woo woo waa journal bi neen man samay waa écrit bu kenn entraîné ci mhm. parce que mm, feebar buy law di ñëw mhm. te xamoo fu muy jugee xamoo fu muy jaar mieux vaut nga teel a jël say mesures de précaution moo tax ma teel a man confiné samay mbër mhm. léegi nag man doog a toog ci samay activité bopp nekk suma kër toog yaa ngi dégg ba nga xam ne moom bis bu ñu demee ba nga xam ne état bi ñi nga xam ne ñoo yor wàllu santé bi ci jàngoro ji nee nañ mën nañoo doxiwaat suñu occupation ñu doog a doxi loolu lañ man parce que nit ñëpp bu ñu gisee ay ancien gloire di def geste mbër yi ñëw tamit def geste yónnee ko ñañ ko war a jox jébbal ko ñañ ko war a jox donc nag mënuñu di di leen di leen ñaanal ak yokkute. Mm-hmm. di leen ñaanal ñu gën ko mën di leen ñaanal aussi ñu bañ a bàyyi. xam mais def def naa geste rek pour pour pour bëgg yenn yenn nit ñi gis la non loolu tax wax da nga koy def te yàlla tax. pour si koor gi. non koor gi moom man su may poulain individuellement la ñuy demee entraînement buñ dogoo ba pare am na programme bu ñuy demee programme bu ñuy liggéeyee. Mm-hmm. parce que heure boobu au moins li ngay sport euh, physique bi ngay def mun ngay bool di jëlaat tuuti ndox di naan mm-hmm. boobu ba demee sa kër nag am na alimentation boo xam ne moom ngay war a mos. Mm-hmm. ba jàngoro yi jóge fi. oui mais mais mais coach gis nañu aussi ak confinement bi. Mhm. bu njëkk ba mbër da daan euh, da wala kuy sport. Mhm. da daan dëpp carte gi c'est-à-dire. Mhm. bis euh, journée bi. da koy noppaleeku. waaw woor bu guddee. mu daal di euh, ndogu. jël ab diir. doog a dem sport yi. alors léegi ñu continuer ñu. vingt suñu kër yi la ñuy fekk. nan la mbër di entraîner bu boobaa biir këram. waaw xam nga dafa am ñaari façon daa am ñoo xam ne seen biir kër am nañu ay couchage am nañu ay velo mm-hmm. waaw su mbër mu complet laa wax te bëgg dara bëgg avenir bu baax da nga am sa kër velo nga maa la ko wax. danga am sa couchage boo war a coucher de temps en temps parce que yu mel nii bu amee ñu ne woon dans deux mois doo génn dans deux mois nga war a préparer combat sa kër war na am matériel. mbokk yi donc euh, li ma am lees wax am na solo donc professionnalisme dafa war a ànd euh, am yooyu euh, jumtuwaay bi waaye mbokk yi ñu fas yéene waxtaanee aussi ci li nga xamante ne moom moo euh, coowul làmb moo lëmb réew moo làmb lëmbe réew mi rawatina làmb ji muy coowu CNG bi coach mm, mm, mm. bi def nañ ci vingt vingt yàgg nañ fi docteur Alioune Sarr ko jiite ak équipe yàgg nañ fi gis nañ ñoo xamante ne démissionné nañu bàyyi bëri nañ ci korsu ñenn ñi ne dafa doy dafa war a dem. waaw korsu lan moo ciy xalaatam. Euh, xam nga kenn ku ne am nga sa idée bopp. Mhm. kenn ku ne am nga sa maqaamay bopp. mais boo xoolee ci mille personnes yi wax yëpp neuf cent yëpp nee nañ Alioune Sarr def na fi lu baax te it nit ki boo amee principe di dox ci réglement moom ci réglement lay dox. moom Alioune Sarr ci règlement lay dox li ma la wax ni bind ko téere buy buy dox ci règlement lay dox léegi nag mënuñu lu may wax moom ñiy wax ñépp ci li mu def ci lu baax ak ni mu changé làmb ji ak ni mu tournee làmb ji ak ni làmb ji mel moom kay yàgg gi la ñuy wax ci moom yàgg na fi rek lañ war a wax ci moom parce que aussi kilifa kenn du ko xas ci ay médias kenn du ko xas ci ay journal kenn du ko xas ci lu lu demee rek te la majeure partie ci ñi koy xas génn wàll gépp dimbali neen leen nit kuy wax. nga maa la ko wax man lu ma la wax ko tey. mais maam. waaw d' accord ndimbal bi. non dama lay expliquer ne yàgg gi. xam nga nit ki buñ ñu vingt 26 ans dañ naan kii yàgg na fi te it bu yàggee dañ yaakaar ne moom dong mooy buum mooy buum mi ba lu ko nit wax du dégg. mais exactement moom rek moom mooy buum foofu la nit ñi bari di réeree ji mbir. xam nga xam nga nit boo jiitee hmm. am say principe bu bopp xam nga Sénégal ñu ci bari dañoo bëgg di jàddu koñ. nga ni la. tamit si wax. damay waxtaan ak yow de dama ne la sénégalais. waaw ñu ci bari dañoo bëgg di jàddu ko maanaam nit ku nekk ci télé di daw 140 ñoom boo ñëwee dañ naan la xandaalu ci digg télé bi. kon da maam euh, euh, euh, moom waa CNG rawatina docteur Alioune Sarr ñi mu nga xamante ne ñoom la gën a sonal mooy ñi nga xamante ne duñu tegu ci yoon. non voilà ci règlement. moom ci règlement lay dox. waaw parce que ci sart yi wóor la koy teg. parce que boo xoolee làmb ji ñu nekk nii ñun bis bu làmb amee jour làmb ja mbër yi cay bëri ñooy yokk règlement bi dégg nga olof baax. parce que ñoo fay indi loo xam ne faw lii nii ñu xam ne du wéy du dem an jëlaat ko tegaat ko ci règlement bi parce que munoo yow nekk amateur te amateur mooy lépp ci làmb nga bëgg a ñëw làmb toog fa 17h jëm 22h wala 23h sax njaboot naan fu ñu ne. Mhm. yaa ngi dégg ba pare nga nekk fa di buuxante wala yooyu di kii wala ñu lay dàq ngay génn saako ñu naan kaay disciple ba kañ gis nañ ko fi. Mhm. loolu règlement bi ci biir combat yi lay amee ci biir combat lañ ko indi ci biir combat lañ ko yàq yokk yokkee ci charte CNG yi donc nit ñi nag ak seen volonté bopp nit ñi am na ñoo xam nit ñoo xam dañuy mer te esprit sénégale mooy loolu. mais coach bu ñu ñëwee ci làmb. Mhm. bu ba léegi làmb mu ngi doon dox. Mhm. comme ni nga ko waxee mu ngi dox ba léegi. mu ngi dox ah. mais mais coach am na am na ay jiixi jaax yu ci am. jàngoro maa ngi ñëw mhm. mais coach gis nañu. Alioune Sarr mhm. kenn werantewul ni mhm. ñii wax ni sax dafa war a dem mhm. kenn werantewul ni liggéey na fi lu am am solo mais gars yi dañoo wax ni boo demee par exemple vingt six ans dafay jot nag nga wàcc nga bàyyi keneen yéeg te gis nañu làmb dafa taxaw combat yu mag amatul yaa ngi comprendre combat yu neex amatul làmb ji promoteur bu mag ñi ñu bëri dem nañu ndandam Pape Abdou Fall moo fi nekk di ci xataraayu. waaw chaque année mu jëm ñoo proposé benn combat bu neex. Mhm. wala sunu euh, euh, euh, papa Luc Nicolaï. waaw yan ko yàlla jëlee fi mu ne. Mhm. donc ñu gis ni promoteur yu mag yi. Mhm. choc yu mag yi. amatul. waaw gars yi jàpp ni aussi CNG si la. boo bëggee dégg-dégg. promoteurs yi ñu yàq làmb ci lañ bokk. nga ni xam nga bu lépp ci yoon lañ koy teg. Hmm. bañ a am mu bañ am différence seen biir. ñoom ñuy méngoo seen biir di déggoo mais xoolal kuréelu promoteur yi am na ñaari kuréel yoo xam ne bokkuñu. Mm-hmm. bu kii nee kii na ko daxaar ka mm-hmm. bu kii demee ci mbir fay ko cent mille kee ñëw na ko fay naa la quatre cent mille. Mm-hmm. ku yàq làmb loolu lu ci CNG man boo waxaalee combat cent millions ñëw indi cinquante millions CNG cinquante millions nga waxtaan ko yàgg mbër ma ca biir këram. ne ko loolu dessous de table la moom la tubaab bi wax chocolat. waaw xam nga xam nga dafa am loo xam ne. buñ buñ maanaam nit ñi buñ bëggee jël ne lii rek CNG moo ko yàq te CNG sart ya nga indi si sart yooyu lay dox sart yooyu lay lay lay tëral yaa ngi dégg ba pare xam nga boo gisee ma ne la promoteur ak mbër ñoo yàq làmb ji mooy li ma la wax léegi parce que promoteur lépp lu mu waroon def rek xam nga moom comme privé la moom intérêt boppam rek lay moom bu soñoon làmb ji dix mille la ci dugal gagné deux cent mille wala quatre cent mille wala cinq cent mille moom loolu lay calculer parce que privé la mais dama ne la buñ doon jaare lépp ci yoon làmb ji ñëpp ànd ci dëgg làmb day dox te kenn du ko téye mais làmb ji fi mu toll nii Cheikh du dox te du gaaw a dox. ndax la ci mbappatu mbedd yi la ñu mujjee. nga ni. arène nationale bee. <laughs> baax mais course bu fekkee arène nationale cher na ci promoteur yi bu fekkee ni arrêt nationale dafa cher nga xamante ne ñoo ko moom réew mee ko moom waroon nañ gën a yomb ci promoteur yi. yombul ci promoteurs yi loolu benn la ñu ne déet waay euh, liñ leen di laajte ci frais d'organisation promoteur yëpp a ngi koy jooy metti na nga war a ñëw li promoteur di yenu ci charge mbër sax yenu ko ci charge ci ci ci combat de lutte promoteur boobu noonu nga xamante ne bu bu bu méttee waa CNG ñoo ko war a ñëw daal di ko rogate parce que aussi CNG jéem na tëgg làmb demul mais bu promoteur ñëwee di góorgóorlu pour tëgg làmb aussi est-ce que waruñ koo euh, jàppale dimbali ko ba lépp euh, ñoom. Cheikh Omar CNG service autonome la promoteur privé la doo bëgg nga am dégg-dégg ñi may seetaan tamit am dégg-dégg CNG autonome la ministre bi day ñëw ne Alioune Sarr parce que dama lay wax ne la ca jamonoy Abdou Diouf jamonoy Ablaye Wade jamonoy Macky Sall ñaata ministre fi jaar bari na bu matul douze mën na tëddee ku ñëw ne ma ku ñëw ne Alioune Sarr jiiteel hmm. parce que xam na xam na yoon wu mu tege donc am na loo xam ne man bu doon maay moom man man man man bu doon maay moom nekk à la place de Alioune damay bàyyi bàyyi leen seen mbir nekk ci li ma nekk. nga maa la ko wax. waaw léegi li parce que bu boobaa nga bàyyi leen ñu doxal ñu xool. mais li tax bàyyiwul lu tax bàyyiwul est-ce que di li nit li ñi di wax la dafa bëri mbaxuus bi ci nekk ni nga koy waxee. noo déggoo li ma la wax la nit ñi réeri mbir ci Alioune Sarr ba dafa takk administration. Mm-hmm. administration bi ñoom ñooy gérer xaalis bi. xaalis bi ñuy dagg ci mbër yi jarul may lim tuur jarul may tub tuur mhm. mais Alioune Sarr service autonome la bu ñu jox na ko doxalal. état administration mi ngi ci biir seen yi. gis nañu daaw te loolu ñëpp xam nañu. d'accord gis nañu daaw ñu indi mhm. Yékini. waaw Yékini xëy bàyyi. Mhm. ak li mu ci wax. au moins Yékini même ku d'accordul ak moom aussi d'accord ak moom. ci franc parler Yékini. dëgg la mu gis ni. garab mën euh, mën ngaa yëg ba ci kaw. sommet bi. wàcc rek a fi des. Mm-hmm. mais est-ce que keneen du ñëw. Mm-hmm. ak idée yu bees Alioune Sarr bi muy ñëw indi la ay idées yu bees yu doxal làmb. defar na defar na defar na ba fii. Mm-hmm. mais fu mu toll nii dematuñu. waaw combat yi amatul événement amatul choc amatul. mais est-ce que moom tamit ak li que parce que quatre-vingt-dix pour cent si ñu ŋànk làmb ji. ñoo koy songu. mbër yaa ngi koy songu. ancien gloire yaa ngi koy songu. promoteur yaa ngi koy songu. yenn manager yaa ngi koy songu. arbitre yaa ngi koy songu. sëñ bi. ku ñëpp tuf li nga tooy tamit CNG bi ku ñëpp tuf li nga tooy. est-ce que mm-hmm. jotul aussi ñoom it comme ni ñu ko mm-hmm. waxee. Mm-hmm. ñu bàyyi kenn ñu keneen ñëw ñu xool. Euh, déggoo li ma lay xanaa nee naa la promoteur bi intérêt personnel lay xool ci loolu parce que un promoteur bu sañoon xaalis ñu dagg mbari moom mu jot ko moom bu gañoon bu bu sañoon nee naa la bu dee 1000 la dépensé gagné 100 millions wala 200 millions moom privé la CNG bi dafa am lu koy doxal. ancien mbër yi nga dégg fii ñuy wax chaque jour di wax ci rajo yi di wax ci média yi waxu ku mer la. waaw ah, mais c'est normal. non dama ne non dafa mer kay ku mer dañuy waxtaan waxu ku mer la. waaw mais lan moo leen te te gis nga la leen merloo. oui mooy li ma la wax rek dañoo waroon booloo ñoom seen biir ànd. ni mbër yi waree ànd ak coach yi lu leen coach yi wax ñu def ko noonu la ñu waroon ànd àndee ñoom seen biir. mais coach lamb kenn àndul kenn. voilà da ngay gis coach lamb kenn àndul may ma tuuti lamb kenn àndul ak mbër yi i. coach waaw may moo xam te ci jiite ngaa sa coach am dem individuel géej wala mu dem beneen équipe jàmm xam nga loolu day am. donc la lamb ji mel. noonu la lamb ji doxee ba bu nit nekkee ci droit di dox ci droit di dox ci dëgg di dox ci règlement may naa la Sénégal ñu ci bari dañuy bëgg di jàdd koñ. waaw léegi coach waxuma loolu. waaw. coach nan nga mën comprendre démission ku mel ni Yékini. waaw nan nga mën a comprendre démission ku mel ni Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane Cheikh ñaan Cheikh Tidiane ñaar dafa bàyyi waaw Cheikh Tidiane bàyyi na. ak ñeneen Moustapha bàyyi na. Mm-hmm. ak ñeneen ñoo xamante ne ci kuréel bi la ñu nekk bàyyi. Mm-hmm. mais coach loolu war na tiital ku ne. Yékini bàyyam ci mbedd bi nga ko déggee. waaw. mais moom dafa dematul. moom taxaw na carrément de bana non moom dafa dematul. waaw mais bana mooy bana. mais xam nga xam nga moom. ministre moo ko dugal foofu. waaw mais dama ni. non dama lay expliquer rek. ministre ko dugal foofu dugal fa Tyson. pour doléance yi mbër yi am ñoom ñu ci jàppale mbër yi est-ce que Yékini def na ko est que teg na ko taabal ji xam nga loolu mooy la sax xam nga nit ki aussi nañuy ànd ci dëgg di dox ci dëgg est-ce que loolu Yékini def na ko. mais bu balaa foofu waaw balaa foofu coach. <coughs> balaa mm-hmm. chaque année. Mm-hmm. di nga dégg. Mm-hmm. CNG. Mhm. réunir waaw ne carrément jël nañu tel décision wala def état des lieux. état des lieux waaw def nañ ko arène nationale. foofu laay waxee. Mhm. chaque jour nga dégg ancien gloire yi kaas. Mhm. woowuñu ci yi décision yi ñuy jël. chaque jour nga dégg mbër yi. kaas jëluñu euh, woowuñu ci décision yi ñuy jël. chaque jour nga dégg ba ci ba ci bi mujj. coach bi bi kenn d'accordul ak ñoom mooy hmm. arbitre yi li la leen def xëy hmm. rek sanctionné leen hmm. te arbitre yi au moins li ñuy laajte mooy am sa prise en charge am assurance parce que ñëpp xam ne làmb ni muy demee bi làmb tojee barki Dembo Ndiaye maag El Hadj bu ma bu ma fa nekk loolu am doole sauvé ko musiba am non xam nga xam nga li tubaab bi naan nul n'est parfait xam nga xam nga arbitre yi ñaata at la fi xam nga nee naa la mooy dama la rek nit du faj mer parce que boo xoolee ñun ñëpp ci dix mille cinq cent yi ñu jot ci la ñu mais bu dee combat cent millions dañu am sept cent cinquante mille duñ tudd sept cent cinquante mille yu bari erreur nag ñoom nangu nañ ne def nañ ko parce que Cheikh Omar erreur nit ku du nit ku nit doomu aadama bu ne da ngay juum. pour yow waa parce que xam nga dox juum. Hmm. Cheikh doo financer sa xaalis. lu luy arène nationale ak arène nationale da nga ne metti naa. nga war a am samedi combat vendredi ñu ne la arbitre du ñu bëre yow guddi googu yëpp boo tëddee doo nelaw. mais yëglu nañu. non defal defal ndànk rek vendredi bi la génn promoteur a tëgg samedi. waaw d'accord mais dama ne. avant dimanche defal ndànk rek. ay at ci ginnaaw ñu ngi kaas coach. loo xam nga yàgg nañ ko kaas tey arbitré. waaw bu doon may ñoom danaa arbitré samedi boobu ak dimanche bi. lundi bi ma doog a sama grève. lu ma ci fekk ma xam ne maa ko góobee nga sauvé nit ñee parce que financement xaalis. Hmm. arène nationale un million yi teg ngay def. yaa ngi dégg te yéen a ngi naan cher googu nag arène nationale bi cher kooku état bi moo ci war a jël responsable mais pas parce que ministre mooy doxal ministre moo moo war a def ne comme stade bi 500000 yi ñu yéen promoteur yëpp nangu ngeen ne baax na ci location ndax am na lumière am na sono siège yi aussi bu directeur stade bi ñëwee dañ ko génne. no cher na non baax na. kon su cher na dafa ndànk 500000 ci stade baax na. Iba Mar boo ko luyee même bu doon 100000 nga lu nga luyee stade bi wala 200000 da nga luyee ji ay siège nangam nangam. donc lamp ya fay tàkk. bu fa cent franc waddee nga for ko nañu waxante dëgg sécurité bi seer la sécurité bi état la foofu nag mun nañ faa ngàdd lu bari ndax état bi mu mu comme moo la defaral bien 32 milliards dëgg dëgg neex yàlla stade bi laaj raxas ñay raxas cent cinquante mille lañ leen dafay cinq cent mille dindi ko léegi bu amee directeur stade bas ab am administration mais fan la ñuy fayee ko ñoom. non xam nga ici dafa am loo xam ne mooy logique nañ koy waxtaane te ñuy waxtaan nañu waxtaan ci dëgg dama ne état bi moo tabax stade bi ne 32 milliards la ci def dañ ko koy nangul mais coach coach loolu yëpp boo ko tabaxee ba pare condition mesure compagnement yi aussi boo ko ci deful gars yi du ñu tëgg làmb ma jox la benn exemple gis nañ fii mais coach ñëpp bëgg a tëgg arène national mu neex gis nañu Assane Ndiaye bi mujj euh, dafa dem ba baar ñi tëgg fa ñu ñëwaat ci euh, euh, maa ngi seetaan jam production maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. nee na chaque jour ngeen dégg. ñu ne mm-hmm. ministre des sports. Mm-hmm. effectivement wax lu am solo la. finance euh, voté nañ ko budget. nee na mësut dégg. ñu ne làmb. ministre de sports yëkkati na temps ci xaalis. accompagner ko promoteurs yi. pour ñu wër di tëgg làmb mm-hmm. lu am am solo lu jara taxaw seetlu la aussi foofu mm-hmm. donc promoteurs yi en quelque sorte c'est vrai que ay privé lañu mais aussi coach dafa mel ni dañ leen bàyyeeg seen bopp rek aussi mais coach yow doo tëgg làmb pour wax ji neex xam nga xam nga xam nga nekk ci xam nga li ma wax rek fa la delluwaat boo nekkee privé di dépenser xaalis yaa ngi dégg yow bu ñu soñoon chaque fois man bu doon bu doon bu doon nangam nga dépensé. promoteur amatul sponsor. non am nañ ko. amatuñu sponsor coach am nañ ko. coach ban sponsor ne ci la. waaw yow yaa ngi tudd léegi xale bu ndaw bi jamay kee bu namee bu bu ñemee jël ne damay taxawal Balla Gaye Modou Lo ak ak ni mu toll nii da nga naan fan la jëlee xaalis bi. waaw fan la ko jëlee. waaw mais coach bokkul. non dégg lu ma la wax yow fan laay waxee. mbir mi da nga ciy dal rek comme ni suñu papa Gaston doon dalee. léegi Tigo mi ngi fi woon Orange mi ngi fi woon léegi nag ñooñu dañ daan génne mais ñooñu ñooñu tëgg laa dañ daan génne xaalis bi taal tegal ko Gaston gasoo ba mu tëgg kalaafam bi mbokkam yëpp dañ ñëwoon dafa def fu mu jëlee xaalis bi fu mu ko jëlee xam na ko. Hmm. ci sponsor la ko jëlee moo tax mu ñemee def loolu. donc nag booy yi ngay gis ñu ñeme naan damay tëgg booy ñaa Balla Gaye fan lañ jëlee bu la neexee toog ci média wala toog ci wax lu neex. Hmm. mais nit ñi boo leen wax da nga leen di wax dëgg wax leen li nga xam ne mooy raad am hmm. moo tax mu ñemee dem di waxaale Balla Gaye wala mu ñemee waxaale booy ñaa yaa ngi def parce que. mais coach sponsor sponsor sponsor ni ñu daan gisee sponsor ci làmb ñu daan tëgg ay affiches yu bari mais bu fekkee benn promoteur moo am fitu taxaw démarché loolu moo lay won yeneen promoteurs yi amuñu possibilité bi continuer aussi gis nañ fi journée yu neex yi Assane Ndiaye di tëgg. léegi dama lay laaj. gis nañ fi Fallou Ndiaye yi muy tëgg. mais coach bu weesoo Pape Abdou Fall mi ñuy indil euh, je sais pas euh, Papa Sow ak Siteu pour combat bu ma gisatoo ko ci làmb. Cheikh. làmb ji nee naa bu yàq promoteur ya ko yàq. mais du CNG. du CNG. mbokk yi Mame Less la woon dañ doon waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy euh, CNG Mame Less bañ na nee na problème bi du CNG mbër yi ñoo am euh, ñoo ñoo indi problème yi. Mm. ak promoteurs yi. donc loolu moom mooy euh, njàngatam ci seen CNG bi daañu dellu si suba incha allah fas yéene leen indil beneen émission bëgg nañoo càmbar bu baax a baax. combat royal bi war a dox ci diggante euh, amaa balde ak Modou Lo hmm, war nañ cee waxtaan lu bëri hmm, maag maam lees incha allah xaar leen ñu suba danañ ñëwaat bu baax a baax ci combat royal bi ak yeneen ak yeneen incha allah maam tàggoon. non siyaar ñëpp rek bëggee ñëpp ci koor gi. Hmm. di ñaanal suma xar yëpp yàlla defe leen jàmm. waa Italie. Euh, suma rakk yi Malick depuis Italie <laughs> waa Ponte Corona. waaw waa Bergamo waa Bolzano ñoom Youssou Gueye Cheikh Abdoulaye Mbacke Gueye suma frère bi Cheikh depuis Allemagne grand El Hadj Mbaye Wade El Hadj Wade Ousmane suma xarit yëpp ñoom Omar Mbow depuis Lyon maa ngi leen di siyaare di siyaare Pape depuis la Bocaire. di siyaare Jean depuis les Mureaux di leen siyaar yéen ñëpp di siyaar waa Equivox du ñu sama booy El di ko siyaar bu wér waa.